<laughs> donc je vais je vais me concentrer voilà je vais me concentrer voilà un peu sur le F24 en disant que cette cette marche vendredi bi non cette marche vendredi bi cette marche vendredi bi ak samedi bi mhm. man jéeg na maa leen marche bi du am tay. waaw du am suba. Mhm ok parce que aujourd'hui ah, nous on s'est formé comme des boucliers. pour défendre la république. te ñoom ce sont des vaillous ce sont des vaillous mais si vous me laissez pas parler si vous me laissez pas parler donc la fil de mes idées dama koy perdre te lu wax tamit te dañ déglu xam mais aussi da nga je disais que voilà je disais que. voilà aujourd'hui mhm. nous on est des boucliers pour défendre la république. Mhm. je répète que F24 nañ xam ne marche pour nous, war def. vendredi ak samedi. man Dieynaba je prends mon engagement ne marche boobu du fi am tay du am suba du gaaw am naa suba pourquoi pourquoi mu wax ko parce que M24 association de malfaiteurs la. d'accord des yoo xam ne pour man ye ye benn yeewale waat bu ñu amaat bu bees si biir dëkk bi ñoo xam ne ils sont là pour leurs intérêts ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir M24 ce sont des gens yoo xam ne warutuñu wax sa biir Sénégal yu déglu lañ ndax jaar ci ay mago yoo xam ne nit ñi teg nañ seen bët. pour la république ce sont des gens qui sont là pour leurs intérêts et aujourd'hui l'intérêt du peuple c'est de faire focus autour du président de la république pour défendre la république parce que la république est menacée il y a des forces occultes qui sont là et ces forces occultes là nous sommes ñuy société civile nous sommes jaar pour tal dëkk parce que que bu le Sénégal tout ci compliqué sommes seen maturité nous ñu dañuy organiser ay marche Nous sommes wane ne TAL Sénégal nous avons créé leen tax et on ne va jamais les laisser faire te M24 incha allah dinañ leen xeex ba mu tas parce que association de malfaiteurs bi mën tuddee moom lañ ndax tey su suñ naan tey société civile tey su dëkk bi tollee fii ñoom ñoo waroon na jóg xeex pour jàmm am dialogue bi nga xam ne président da koo oote ñoom demu si ñoom ñoo ci waroon a jiitu tey balaay kenn du si dem ndax na normalement dialogue société civile moo ko taxoon a jóg fekkee société civile bu normal la bu jub la boo xam ne population yi moo ko tax a jóg mais loolu taxu leen a jóg seen poste moo leen tax a jóg <laughs> ak seen seen compte bancaire yi ak am am ay nuñ nuñ defee am ay terrain ci ci filao yi donc loolu moo leen tax a jóg ils sont pas là pour l'intérêt du Sénégal et les Sénégalais doivent les combattre ah, donc maa ngi kontaan ci invitation bi mhm. euh, di ñaan yàlla mhm. euh, suñ kilifa yu ci réew mi euh, yàlla na ni yàlla guddal seen fan yi ma leen wër ak wërle yàlla yokk seen ba yokk seen martaba ba ba nga xam ne luñ téye suñu réew mi ba tey mu nekk ci jàmm ndax kat nag président def na lu nekk de la bi du Sénégal était toujours debout et fort mais nag ñaan yàlla sa maam nee lu mu mënul amul tey suñ xoolee kilifa diine yu ñu fi am tey Sénégal su dëgëree ñoom la moo tax meññaan xale yi ñu warmaal leen ñuy sàkku ñoom ci ñaan ne leen heure bii su jotoon tolloon fii dañ doon gëm am ab Aziz Sy Dabakh di génn doon wax di apaiser noonu tamit si lañ nekk nag gis nañ Cheikh Mahi maa ngi koy nuyu de passage génn barki démb mu wax luy apaiser bi mm-hmm. ndax jàmm si da lépp xaj ñun taloo suñu ay loxo ne nañ ñaanal président de la République Macky Sall ndax yàlla moo ko fi teg te te sa tey su yen bi oyofee am jàmm nañ ñaanal yàlla Sénégal am jàmm ndax jàmm si la lépp xaj maa ngi nuyu ñëpp di di gërëm ñëpp di kontaan aussi ci seen teewaay ci tey fii ci samay samay samay loko incha allah. jëf maa ngi lay gërëm di <laughs> ah, man tamit nuyu ma la amul benn problème Aline maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ah mu nekkoon entretien spécial. ah ma dalaloon fi madame euh, Dieynaba Diop gis ngeen palaato bu neex moo am tey ndaxte moom euh, mooy ma dara mais mooy ko dara mu nekk nag entretien bu amu am solo boo xamante ni ma koy jaajafal nag parce que émission bi tardivement la ñu ko kale mais mu nangul ma invitation bi comme ni mu ko waxee bokkul ak ci gars yi daw ñeneen ñi moom dañoo daw dugg seen rondal kenn gisu leen mais moom euh, génn na waxtaan ak population bi waxtaan ak askan bi donc mën ngeen continuer ñuy suivre euh, suñu ay programme dinañ ñëwaat ci beneen numéro ci beneen entretien dalal beneen leader jaa ngeen jëf